السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حاج بابكر ديالونا للنيوب ندير لك فوساز يقولوا بس بي واو حاج بابكر يبل بتينك دا فاي تي نيت كو خم نيس دوم مو خم بو غور بلا ولا بو جيجين بلا امنا كوموي نغورول ولا سرك بو جيجين ولا سمك بو جيجين امنا كوموي نغورول nga bëgg yàlla gaawal sëy bi yàlla boole leen walla yow sax nga am ko bëgg denc ko te nga gis ne am na ay gàllankoor yu ndaw nga bëgg a ñaan sa borom subhanahu wa taala pour mu yombal te gaawal sëy bi te mu jig leen dem na benn saaru alxuraan bu ñuy wax surat 42 mooy suratu shura suratu shura ci aaya 29 bi ca fin wu aaya 29 ba moom ngay jël wa huwa ala jamcihim ida yashaau qadirun wa huwa ala jamcihim yashaau qadirun nga di ko jàng bés bu nekk nga jàng ko ñeen fukki yoon ak benn di ñaan pour yàlla jàppandal yombal loolu de insha allah ci tajribatu magni wax nañu ne kep ko ko def loolu dana yomb ma sha allah wa huwa ala jam'ihim idha yasha qadirun jërëjëf jërëjëf oustaz Mor